chaîne national bu rajo Sénégal moo leen di indil seen émission bis ni tey koy defal di seen xarit Atoumane Mbaye di conservateur ci archive nationale asalaamaaleykum mbokkee xarit yi ñuy déglu bis ni tey ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci atum 1967 ci la njiitu réew mi président Léopold Sédar Senghor muccee woon ca boom gënu ko doon fexee boome ci grande mosquée bi nekk fii ci ndakaaru xeexoo boobu ma nga amee woon ci bisub àllarba tombe woon itam ak bisu tabaski Euh, donte ci diiney catholique la jokk woon njiitu réew mi président Léopold Sédar Senghor daan na faral di teewe julli iid yi ngir sargal jullit ñi ginnaaw bu nu jullee ba noppi looloo taxoon ba keroog àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars atu 1967 doon itam bisu tabaski moom président Senghor mu teewoon ci grande mosquée bi nekk fii ci Ndakaaru ca la jenn waay ju nuy wax euh, Moustapha Lo woon ca lang ga ak pistolet 9 millimètres daal di fëx wutali njiitu réew mi kon na président Senghor doon door a jóge ca tribunal ba ba jublu ca ca tribune ba maanaam ba jublu ca naas ba ko waroon a delloo ca pale ba ma nga àndoon ak eh, Abdou Diouf ma doon booba secrétaire général bu présidence de la république su dul woon ak eh, yàlla keroog eh, Moustapha Lo doon na def lu doy waar ab brigadier police bu nuy wax Arfan Thiène ak ab garde du corps bu ñu naan Seydou Sow ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo bëre woon ak Moustapha Lo ba nangu ca moom ngànnaay la mu yoroon laata mu ko doon sukkandikoo kooku di Moustapha Lo nag mu nga juddoo ca Kaolack ca atum 1926 jotoon na sax a nekk secrétaire ca ambassade du Sénégal ba nekk ca ker ca atum 1962 waaye ba mu doon def jéeye jooju euh, xamewuñu ko woon benn liggéey bu mu doon def ba ko alkaati ya doon enquête weddiwul woon dara ca la mu defoon moom Moustapha Lo te newoon na itam kenn yónniwu ko woon ba alkaati yee demee fa mu dëkkoon fekkoon nañu fa geneen ginaar ak i nenam maanaam beneen pistolet ki balam Euh, ba xibaar ba tasee ci biir réew mi nit ñi ñaawlu woon nañu lool jëf ja Moustapha defoon télégramme yu bari itam jóge woon nañ ca bitim réew ngir naqarlu ñaawteef boobu mustafaaloo moom ñoo ngi ko mujjoon a àtte ci fukki fan ak juróom ci weeru juin ci atum 1967 mooma àtte booba nag moo doon ñu jël bakkanam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin atum 1967 mooy bis bi nga xam ne ca la ñu jëloon bakkanu Moustapha Lo comme ni nga xamee ne noonu la ko yoon tërale woon bis ni tey la woon itam ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci atum ca la bàyyikoo woon ca Vince ca Saint-Vincent tubaab ba buuru Portugal euh, jëkkoon a yónni ngir mu nemmi kusil ko réew mi ndaw loola mu nga tuddoon Alvise Cadamosto ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca atum 1969 euh, ca la faatu woon ca Bordeaux ca réewum France ki ñu naan Amadou Bari te doon meeru Gorée tey tey jii ñu tuddee ko stade ba nekk ca Pikine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca atum 1996 ca la ñu soppee woon région administrative yi def leen ay collectivité locale yoo xam ne ay conseil régionaux ñoo leen di doxal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca atum 2003 ca la ñu doon ubbi ab gare routière ca Mbour ci teewaayu premier ministre Idrissa Seck mbokk yee xarit yi fii la ñu yem yéen tey di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal bëccëgub jàmm ci machine Diop ci kàddu gi seen xarit Atoumane Mbaye di leen dig nag beneen jokkoo ëllëg ci waxtu wi su neexee sunu borom.